ci wàccaayu tabaski bi délégation bu mag la soxna Aïda Diallo moom Cheikh Béthio Thioune yabal ci Touba ñoo indi ay xaru tabaski comme ni ko Serigne Cheikh Béthio Thioune doon defee ci dundam bi nu agsee nag def kureel yëkkati xasida naka noonu délégation bi delus nañu si seen teewaay si Touba. jërëjëfati Serigne Béthio soxna Aïda Saliou jëmi Serigne Béthio yàlla na fi yàgg lool te waaw tey dañoo ñëw fii ci kër xalifa bi indi fi jëfam ji nga xam ne mooy àddiyey sëriñ bi ci bis bi nga xam ne mooy bisu tabaski waaw lenn ci li nga xamante ni moom la taalibe yi indi ci kër ga ngir jëmmi sëriñ Touba loolu lii la ci indi jël lii nga xamante nii moom la ci yót xalif général dem mourides loolu mooy jëf bi kon Soxna Aida moom sëriñ Béthio moo fi yónnee lii ci turam lañ ko indee jébbal si ko xalif général des mourides jërëjëf waa lim bi nag moom dees ko mën a tudd waaye boo xoolee di nga xam ne daal nii la lim bi toll doon nag limub xar yu takku waaye nag délégation bi jotuñoo àgg si xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké lu waral lu nu mel jotuñu ko xam waaye daal gis nañu ni am na ñaari kilifa yu génn dalal leen Serigne Moustapha Lakram Mbacké ak Serigne Cheikh Abdoulatif Mbacké waxtaan ak ñoom rafetlu taxawaay bi jottali tamit kàddu Serigne bi nemeeku nañ samit teewaayu Saliou Samb fii si kër Serigne Mountakha Mbacké jëf ji nag yàgg na nun di koy gis si diggante Serigne Cheikh Béthio Thioune la woon ak njabootu Serigne Touba ak képp ku ko fi toogal tey jii nag soxna ay Diallo mi ngi koy lawal